pour ñu defaral leen visa ba ngeen mën a tukki yàlla def na nag gars nañ visa yi oo nañ ñu ne ñu jël si ko jëli nañ ko ci seen tur yéen tey nag ñu fas éenee leen koo jox léegi nag bëgguma wax ji gudda waat marketing communications manager bi mi nga xam ne chair programme bi mu am door presentation bi waaye dama bëgg balaa ñu door presentation bi ñu may xoreja moom itamit mu sànni ci kaddu parce que ah yéen xëj na bii mooy seen première euh, yoon yéen nga dem maaka moom yàlla def na demoon na te ku la jiitu si béréb am na lu mu fa xam loo xamut moom itamit mu sànni ci baati euh, euh, advice ci pour yéen su ko defee rek gën leen a dalal seen xel ndax ñun ni ngeen gën a seen xel yi gën a dalee rek ñun tamit noonu lañ gën a kontaan ñinan kay ala tentoo lam ñinti dorong ala ma asiyan siyan na banko kan jamono kono ala ma kala mbe sawo ñim maati ay kee kenya kayroti banko kan maka nag ama iisi bare fengo fenje doman doman wolen dorong anin hakkil tuwo ah nal tata fanal kana ngina gamsel kuwol la dorong ah fo alfanan si duwee dorong fo ñi ibe men na mennaten fo si meewo kela moolee dorong compagnie taa ñaato dorong ah ale duwa ke wala makata naka ama isi de hmm, bata doron ne bare bata kayra mala a alamal nyimmayta kayra ale na kayra len tarajan kayrol fana ali alla dimbal to hayra ale murna ali tar kayro kono sila hormoto alkata fe mo fe men duwaje alama ala ya be muta assalamu alaikum bokay ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm um haj bi suñ buñ ko lancé si paradise that was three months ago kontaan nañ si torop gos customer si uyu nañ ñu nit ñi loot nañ te gis nañ ne nit ñi promotion bi lu leen itteel la te kontaan nañ si because gis nañ ñu si wiintee ñu luñ def rek kon yaay ministère ni mu ko waxee rek yëpp dëgg la nee nekka su nekkutoon dëgg dañ demoon di dem paradise di fa wax rek te mujjee bi amul results biñ ko génnee so biñ ko loncee teel a three months ñoo nañ nit ñu wiin nañ jox nañ leen seen ticket te ñu ngi leen di jox seen passeport pour ngeen dem maaka so di ngeen xam ne liñ wax rek dëgg la fim mu nekk nag kontaan nañ torop ñu ngi ñaanal suñ ujaaji yëpp ñu jógee fi jaama dem si jaama ñaanal dëkk bi ñaanal gamsel mu jëm si kanam ñu yàgga di def lii ñu ngi gërëm ñëpp di leen thank you um, nina o oh, madame ramuñas o oh, first customer bi mo present ko ak passport am air ticket am ak vaccination card am ak bag bu ko dugal yépp ndax mu ay secure ajaratu Kadisa dara mu ñëw am passeport am details am yëpp ak am even kayit bi nga xam ne su buggee call Gambia Airways pour find out flight details yeeg yooyu boolewaale nañ ko Alaaji Modou Ka ajaratu Hawa Jaabi mu jël document am ak passeport am léegi ki ñoo oo mooy ajaratu Sadio Fofana Sadio Fofana pour ñu jël si passeport bi ak document si yëpp um, Alhaji Souleymane Diallo eh, abaraka bake antiramu na senior manager gamsal marketing eh, e ɓe contodiro nen tentiro futandi lema anin na manager marketing communication mañuma thiam anin staff to mal mel be ɓe siri jam mbal ɓe contonnal tol na conton e bi kontano wara bat karun kar saba komando wolun nam ku te ka lonj e bar ni nga lonj ko ni menna ki nyama ni be findila men kungul jimila alana tam ma koy e kiliyano le ma koy e do kulal fana ya muta nyama ko nyum felanti anata ka nyama kaynum be amoy lon nan la nyama makam kulete me alon ko ni la hijo jabita a jooɗo fen fenti namen ke arjanna caaboote e wotonɓe duwalale almale ta kayra kono e ala hijo ko almalla hijo e muta fana nalnaɗa fana ala allah dimbali men tujan ala yetata ñama ñimmu kulete mialon ko kiryanol e tere dalal ko kiryanol sewonde ka katum ga moyi nalla ñamen ko ani ani sariyan kono abo jeewo ñama ko kiliyanol ta kiya amurundi kan ko buñamurundi kan walla dello jugalti kamurundi la kiliyanol kañum mbimu wolete otom dalɓe men folale dron dal jonol kaatu niŋ kiliyaanolu meŋ soto gamsel te soto noo la woto ala yamuta ñe ñaame mbe duwa laale e kaal tentu kaal jaye alma leta kayra kono ala na kayra kono ala yalla dimbal tara jang alama allah hijo mutala alama allah hijo mutala alma allah hijo mutala abarkallah wala jërëjëf sëriñ waju rafet na léegi jërë leen jëf ujaaj yi yene leen yàlla eb ci yooni jaama ngeen dem fekk fa jaama ngeen isi ngeen ñu fekk fi jaama soo leen demee ngeen ñaanal ñu te ngeen oñu ngeen ñaanal Gamcel. ñun ñuy dem maa ngi ñaan si suma mbokk yi nga xam ne maa ngi ñoom ànd di ñëpp julli leen ñëpp ñu dem si turu Gamcel kenn du toog ci benn benn place lu ñaari semaine di jaamu yàlla rek amuloo benn soxla lu may jaamu yàlla rek loolu wax dëgg yàlla waruñu mën a fàtte ki nga xam ne moo la fa yóbbu mooy Gamcel maa ngi ñaan suñu mbokk yëpp waxtu buñ jullee. nay sànni ñaan gamsel yàlla yokk ko ca kanam yàlla téye leen ca kanam yàlla jàppale staff bi fi nekk ñëpp mboolem koo xam rek ne jàpp nga ci ci mu dem kanam bàyyi wuñ kenn xaajale wuñ kenn doole ko ca ca suuf ba ca ca mujj ci kaw yëpp yàlla na yàlla teel ñu boppam yàlla na yàlla yok seen place yi yàlla yokk wërsëg yi yàlla barkeel njaboot yëpp barke alquran def jamatam ci mi réew mi su amul jàmm kenn amul jàmm nañu ñaan jàmm ci réew mi parce que jàmm jooju mooy yóbbu ñëpp yàlla yàlla dafa ñu sutura dafa ñu xewal boobu noonu ñun ñuy dem tam lépp luñ ñaan foofu yàlla na yàlla nangu ko lépp luñ fa ñaan yàlla na yàlla nangu ko si barke alquranu karim si barke makka ak medina asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ntel fanani men felenti ten gamsel ben sambala gamsel la ko be yaajele ku seniŋo lom tafal tafal tijee mbe duwala lentel fanal contantale contano be ñama mbe duwala gam selye birin jamban fo makkamu ban hannin nata mbe duwala gam sella koto tala doron gam sel alamal tala ñato alamal selela te ɓen kamɓen alama sabati lal tema compagne ña alama sella alanin kila kano horomoto alɓe baro menna banko kam mo be ñabalale allah kuwo daf tafal tafal tije wo kundintije ku senu doron albo le tamandi kan woto alna law ŋaniya seneya kan ala mu palasol be tala ñaato ala mu gamsel yiri wala ala ma tala ñaato ya rabbi mari man sontel mel fanal bitam bita kayra nga na kayra la ngal tarajan kayra la mbe duwala gamsel ye mbe duwala banko ye hero nen sabato nen tenkuni yiri wala ramum be konton na pake ya baraka ala munnal be baraji la wala mun alhamdulillah gamsel wakati gana kara golle gore be baro dangani ken warja ko gore ay kara nyango dangani ke ngemindiyo ke ngemindiyo ke jigi ngen gi lenyari kagar nge kolu nanti nge no bangini gamselia yo ngakille ne kagar kolu tahana ngakarin kolu ndi hani soviet ke minga kenya ibirika bai gai eh, eh, eh masoro ngari nanti eh, saba nyen hige abida la ninga nga kinyera ngone nyime li office no ngonde ngone yo khati hige ni saba nyai minyi me sirika kinyera ngone li ngone yo alla la nya ngari yere bane ora banyunu ora passport londi gena gam na nyuari niya khar hibe nyangoda ngani kanyuari kache magawari oduana arna kane dengi eh, naxa xigedenge eh, kaani a landa hala toxe wara xamaxa eh, iyo persira ke xa ɓegani wa tigana a ñuwari ke sabun kita yadi iyo ke digamini ke ay digame maga bo siri allahuma salli ala mamad gamsel yow yaay borom gamsel ñun ñoy borom mbetax ñu ngi leen delloo njukkal waaw béyti laay kanama ci at bu ne dañuy tànn nit jëla yóbbu la makk nga siyaare ji béyti nabil Mustafa moo bii toona kontoŋ la di duwara gamseliya mayri ñin tikeetoo ñin nte ma wini nde